asalaamaaleykum mbokk yi ñu suivre saa su nekk ci bépp actu ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal jamono ji nag coow topp na ñaari doomu aadama ku ci mel ni oustaz Iran Ndao ak Mbaye Diagne loolu waral na ñu leen di indil ay leeral ci coow bi nga xamante ni moo leen topp ak tuuma yi nga xamante ni moom la ñuy indi di ko tekk seen kaw. dañ koy daal di tàmbali ak oustaz si jamono ji yëpp nag am na benn waaye bu ko porté plainte pour abus de confiance maanaam waa ji nee na oustaz Iran Ndao ko escroquer ay millions ginnaaw ba mu dikkee ci moom daani ko dafa am sama benn proche bu feebar lool soxla ndimbal oustaz Iran Ndao daal di koy defar ket ba yor millions yu bari waaye waa ji nee na tegu ci bët lu toll ci un centime loolu waraloon nag mu daal di koy porter plainte ginnaaw ba oustaz Iran Ndao daal di demee wuy ji waa gendarmerie dem na joxe li nga xamante ni moom moo di version moom dëggal na ni day faral di dimbali doomu aadama yi ci lu baree bari rawatina ñi nga xamante ni ñoo nekk dans le besoin ñu ci bari sax ñooy yëkkati seen téléphone daal di koy woo ni ko oustaz Iran jàppale ñu dañoo am jafe-jafe bi te lu ci gën a ëpp mooy nit ñi nga xamante ni dañoo feebar xate amuñu lu ñu fajoo loolu waral na ba ko waa ji contacté moom oustaz Iran Ndao daan ko soxnaam dafa feebar lool mu daal di soxla ndimbal oustaz tamit nee na ci xolam bu rafet mu daal di accepté dimbali ko ci émission boobu muy fësal ñëpp di ko gis. muy la main du te umbale wu leen ni moom oustaz Iran Ndao la main du cœur bépp un franc boo xamante ni dafay dugg wala mu fay génn rek day toog ko ci télé bi daal di koy fësal. di dajji enveloppe bi ñëpp di ko gis su muy wone message yu yi ak orange money yi ba tax na képp ku ci dugal 1000 francs sax moom Iran Ndao da koy wone ci télé bi ñëpp gis ko dem na sax ba émission dafa am partie boo xamante ni day compter spécialement xaalis bi nga xamante ni moom mooy dugg ak di génn ci émission boobu jëmale ko ci ñëw ni doole yi moom nag dëggal na ni def na ket jëmale ko ci waajooju pour mu fàcc soxnaam waaye leeralaat na bu baax a baax ni képp koo xamante ni danga mës a sàkku ndimbalu la main du cœur heure bu ñu dajalee xaalis bi dañuy daal di dem ci hôpital bi nga xamante ni fa ngay fajoo ñu daal di leen di laaj ci montant bi nga xamante ni moom nga soxla ñu jox ko waa hôpital bi ñoom nag ñoom ñooy chargé du reste maanaam ñoom ñooy mujjee faj mi ak ordonnance bi ak lépp loo xamante ni rek malade bi ci boppam mu da koy soxla. waaye mosuñu jël un franc di ko jox nit boo xamante ne da leen koo laaj sans pour autant ñu jokkook hôpital bi nga xamante ni moom moo lay faj moom oustaz Iran Ndao ba tey ci leeral yi nga xamante ni jox na ko waa gendarmerie nee na leen xamul ñaata xaalis la dajale woon pour waajoo ji waaye waa ji soxnaam dafa mujjee génn àdduna ñu koy jaalee de passage waaye ginnaaw loolu waa ji dafa continuer di toppee oustaz Iran xaalis bi nga xamante ni moom la ko doon ketalee ci la main du cœur loolu waral na nag mu daal di koy porter plainte indi ko ci justice pour mu daal di wax alal jooju fan la dugg waaye Iran Ndao mi ngi leeral ni moom bis bu defee ket ba pare ci lay gëj xam xaalis boobu noonu fan la féete wala fan la nekk teewul ni bañ ko dégloo ba pare libéré nañ ko mu dem oustaz Iran Ndao parce que umpule wu leen ni nag jëf lu baax dong lañ ko xamee ci mim réew waaye teewal ni joxaat nañ ko beneen convocation pour mu ñëwaat wuy si gendarmerie. donc coow baa ngi noonu bi doxoo ci diggante waa ji dëkk ca Thiès ak Iran Ndaw ba tax na nag dañu jël lépp bàyyi ko ci loxol yoon enquête bi lu mu joxe rek dinañ ci dellu siwaat bu ko defee ñu daal di ñëw ci ki nga xamante ni moom moo di Mbaye Diagne ginnaaw ba mu amee problème ci këlëbam teg ci tamit mu daal di déraper ci benn appel Instagram jëmale ko ci ab xale bu jigéen boobu ba tey nag nit ñi mayuñu ko lu toll ni yotaa ba tax na nag démb ñoo ngi fësal ab xibaar ni mbay Diagne dañ ko war a génne ci appartement bi nga xamante ni euh, fëla dëkk ca Belgique moom soxnaam ak ñaari doomam. loolu waral na ñu leen ci indilaat ak leeral bu baax a baax moom Mbaye Diagne mu ngi waroon a quitté appartement boobu le 30 avril bii nii ñu génn. waaye umpalewu leen ni nag mbas mi nga xamante ni moom moo yëngal àdduna moom moo tiyee activité yëpp loolu moo waral ba tey mënul am beneen appartement ba quitté boobu waaye du caaganka ni dafa am problème ak bailleuram wala mu ameel ko lu toll ni un franc ndax kii ni di avocat ma génn na leeral loolu Mbaye Diagne ñàkk ko ko moo ngi sant yàlla ndax ginnaaw ba jàngoroy coronavirus duggee ci Sénégal jël na lu toll ci 200 familles daal di leen di jox ndimbal muy ceeb di dëwlin di sucre ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni dañuy faral di ko soxla ñoom famille néew ñu doole yi. waaye tamit lu toll ci vingt daara yoo xamante ni jox na leen ndimbal bu takkoo takk ci jamono yi mas mile donc du ñàkk ko moo waral boobu ba tey ñu naan Mbaye Diagne dañ ko war a dàkkee ci appartement am du ñàkk ko fay du leneen ak leneen waaye mbas mi dongo moo ko bloqué ba mënul am beneen appartement bu mu jëm donc mbokk yi leeral yaa ngi noonu jëmale ko ci Mbaye Diagne ginnaaw ba nit ñi di gis bopp ba tey ci réseaux sociaux yi naan na lañ koy waaja a dàkkee ci appartement ma bi muy yeewoo fële na la ci Belgique joxaat nañ leen ci ay leeral bu baax a baax ngeen comprendre lan moo waral coow boobu waaye tamit mbirum Iran Ndao joxaat nañ leen ci ay leeral yu gën a fës ginnaaw ba mu demee wuy ji gendarmerie ba ñëw donc mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ni lañ koy defee saa su nekk. lépp lu lëndëm seen bët rek ñu daal di leen ci indi la ay leeral ba ngeen xam lépp donc fi leen ñuy yem ak yéen te di leen jox dig daje ba suba incha allah jaa ngeen jëf.